jërë ngeen jëf mbokk yi internet yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax a baax di am mbégte ak contentement saa su nekk ñu leen koy uh, farañ fàcce fii si biir télévision Kabir TV rawatina seen émission Kabir matinal Kabir matinal nag daal di nay ñëwati ak uh, nu koy daal di farañ fàcce rek daal di koy gën a jubali fi nga xamante rek si campagne bi nañ ko daan waxee rek nee naa leen way wa dem na këñ waxe mag dem na nday tàll foog jël am wala boog li nga xam ne moom moo di rek loxo dem na gémmiñ te yóbbaalewul tubb loolu nag li ñu nemee fii si langu politique bi fële sa Bakel wala nga ne Tambacounda am njaay joxante jóbbaa ngay takar naa si ma ne loxo yaa ngay damm lii nga xamante ni moom moo di rek parabrise yag li si mel ni xeer yag ya daal dina fay jolli cuuraay ja nga xamante ne ni képp ku ko rek noyyi say bakkan daal di yuur sa bopp bi daal di ormante wu foofa nag nga xewee fa la nga xamante ni ndiki démb ñu ngi fa doon kii di Bougane Gueye Dany moom nag gis nga bu ma génne rek lam daal di xamle moom moo di moom Bougane Gueye Dany daal di nay wax rek ne lépp loo xamante ni moom moo di défendre euh, pays bi moom la gën a daal di moom daal moom mooy liberté moom Bougane Gueye Dany moo wax li ñu mel euh, climat la grossesse moom la ko daal di tuddee muy nag ciment boo xamante ne ni ciment de la grosse euh, crise mooy ciment ba nag fu mu toll nii am nay ba xundaañtal yoo xamante ni ñu ngi koy amal loobi loobi ruubi lañ koy daal di tuddee muy loo xamante ni daal eh, lu toll si vingt cinq pour cent eh, ay eh, produits yoo xamante ni produi ciment boo xamante ni daal fu mu toll ni mun nañ ne mu ngay nasxay bu ñu fa jógee ba léegi si l'observateur dañuy koy daal di dama tàmbali fi nga xamante ni ñëw rek si li nga xam ne moom moo di rek takku wëllu li nga xam rek suñu Sénégal Sénégal ñoom nag del leen daal di attaqué rek seen caravane ba euh, caravane de Sonko a ah, fële nga xam ne rek euh, rawat na dëkk bëla Koungheul Koungheul nag foofu lañ attaqué eh, kii di eh, cortège bi nga xamante ni moom mooy eh, le premier ministre Ousmane Sonko ba mu nekkoon gis na fa nag nemmeeku na fa ay blessé waaye aussi tous nañ ki nga xamante ni moom moo laal ki nga xamante moom moo di rek Malick Gakou fu mu toll loxo gauche ba moom moo daal di damm def ouverture def nag benn fracture ouverte si loxo bi nga xamante moom di loxo gis gauche ba mbokk yi ba léegi rek li nga xam moo di Bougane Gueye les premiers mots yi nga xamante ni moom daal di génn dañ ko daal di libéré rek lam daal di wax moom moo di après sa sortie de prison moom kii di Bougane Gueye Dany daal di nay nag remercier euh, tout le monde maanaam daal di sàkku si àdduna bi yëpp daal di leen di remercier waaye ba tey plus de quatre-vingt-dix euh, morts dans li nga xamante ni moom moo ay inondations euh, dans la région de Euh, Valence waaye nag mu nekk loo xamante ni euh, ñu ngi koy euh, ñaawlu bu baax a baax ñu fa jógee dinañ daal di addu nag si li nga xam ne moom moo di rek rawatina le quotidien wala boog fële nga xam ne moom moo di rek l'enquête nag li ñu fay daal di tabbi dem nag xamle li nga xam ne moom moo di rek mbir ma ñu mel fële sa nationale l'enquête li mu daal di andi rek am mu ne li nga xam ne moom moo di rek kuraat li nga xam moo di euh, coalition bi nga xamante ni euh, nekk na deux mille vingt quatre bi fële sa assemblée nationale muy euh, l' assemblée nationale du Sénégal ñoom nag ku jega am na ay rëq-rëq maanaam xëyroo nga yoo xamante ni ñu ngi koy fas yéene def ñu gis nag li nga xam moo di discours bi nga xamante ni moom moo di parcours même ay détails yoo xamante ni kii di président bi ni ki démb def na ko mu discours bu mucc ayib Bougane Gueye Dany reste éligible moom la ko l'enquête daal di tuddi euh, Boulaye Dia euh, la ñuy daal di jubali ba tey euh, si ki nga moo di enquête moom moo ko daal di ñëw en porte des buts moom moom Boulaye Dia daal dina koy indi si xët bu njëkk bi bu ñu fa kii di quotidien quotidien nag daal di indi nouvelle en plus nouvelle en plus le Sénégal a fond la kees moom la daal di teg nag si xët mu njëkk bi daal di si xamle lu bëree bëri eh, fi nga xamante moom moo di rek eh, fii si l'enquête l'enquête nag nee na le pays lève eh, cent quatre-vingt-un milliards après la suspension de son programme avec le film euh, GP bi nga xamante ni daal dinañ koy euh, grosé waaye encore nag def li nga xamante rek interprétation euh, comme avec li nga xamante moom mooy rek ay dernière mandation yoo xamante ni daal dinañ koy amal si mbir moomu gis nga fii ba tey si quotidien mu daal di fay def des blessés et des dégâts yu ñu amal fële nga xamante ni moom di duwaanu coupe fële nga xam ne duwaanu rek rawatina Koupentoum wala nga ne fe nga diwaanu Tambacounda wala nga ne diwaanu fa nga di rek rawatina wéetu Bakel foofa nag gis nga li nga xam ne moom moo di rek Koungheul daal dinañ fay attaque yi ki nga xam ne moo di cortège Ousmane Sonko ba gis nga blessé ya kii di rek Khalifa Sall daal dina si amee ay gaañu gaañu bugan gi dani daal dina say addu ay kaddu ba mu génnee eh, nee na nag bugan Bougay Gueye euh, Dany moom nag daal dinay def le début euh, de campagne nag daal dina koy tàmbale moom Bougane Gueye Dany def na nag euh, tàmbale na li nga xam ne moom moo di campagne am mbokk yi ba tey lii di rek débrief de ga Ngala Sylla nekk coach bi nga xamante ni mooy fële sa Ndakaaru Njaay coach Jaraaf bi nag daal dinay addu tamit ay mbir yoo xamante ni ngir leeral si nu ñu ba tey dañuy wéyal na li nga xamante rek information yi daal di koy euh, jukki euh, si li nga xam ne moom rek phase euh, yu fasante ko yi ndax langu politique bi nga xamante ni fu mu toll nii daal di nay jëbbi waaye nag lépp loo xamante rek Sud Quotidien daal di na say addu ñëw nag si manda manda bi nga xamante ni à un mois de prison avec sursis moom lañ ko daal di duppe moom ki nga xamante moom moo di rek Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany nag daal dinay antu si li nga xamante moom moo di rek euh, pour diviser lépp loo xamante ni dafay addu moom nag loolu lañ ko daal di teg si ndoddam ga ndodd ga nag euh, dañ ko def rek mu benn weer boo xamante ni da koy daal di euh, def prison waaye nag ak avec source lay doon euh, moom lañ ko daal di teg sa ndodd ko gis nga ba tey Barthélemy Diaz ak campagne amal nañ ko moom Bougane ba mu génn rek daal di wéyal mbir mu ñu mel bu ñu fa jógee dañuy euh, Walf Quotidien Bougane Gueye Larzim daal na koy def mu ngi ni légende de Bougane Gueye Dany gëm sa bopp euh, ki nga xamante moom moo di rek daal dinañ koy def un mois de prison avec source daal dina si ñëw euh, bonne gouvernance euh, sàmm sa kàddu corrige les projets moom nag gis nga kii di Barthélemy Diaz ak sa wet ba ñu fa fekk kii di nga xamante moom di rek rawatina Pape Djibril Fall ñoom ñu ngi si xët njëkk bi nga xamante ni seeni nataal ñi nga fa fee nga xam moo di rek euh, rawatina euh, dëkk bi nga xam ne daal nay am violence bi ñu dal fa def muy Koungheul euh, Koungheul nag nemmeeku leen fa lii di parti politique yi jàmmarloo yi daal dina fay takkarnaa si lool sax ndiki démb le convention de le convent de Sonko cachet total moom la ko daal di dippe mu nekk nag loo xamante ay mbir yuy def la libération daal di ñëw le film bi nga xamante ni moom moo di table sur une taux de euh, croissance de 9,3% en 2025 si ba tey la euh, libération dal si addu sur la euh, puce des 7,330 milliards de francs CFA envolés entre janvier et mars 2024 loolu yëpp nag xayma la boo xamante ni euh, kii nga xam ne moom moo di rek le quotidien daal na koy xayma euh, xayma bu yaato yaatu aju ko nag si li nga xam ne rek de janvier bi ak mars 2024 euh, li nga xam ne rek le public le public ñëw si li nga xam rek ay désensoir des jeunes la désensoir des jeunes maanaam ndaw yi nga xamante ni dañoo am d'espoir boo xamante si gouvernement bi bi gis nga gaal gaa nga noona ñu daal say def eh, kii di Hélène Tine daal dina si ñëw ceux qui ceux qui euh, sont pour euh, rejoindre euh, Pastef ce sont ay citoyen <laughs> moom nag kii di nag du suñu wax ay waxu ki xam moo di la daal dina say addu lu bëri mi nga xamante ni moom moo di Hélène Tine peuple li nga xamante ni moom moo le service bi nga xamante ni moom moo di service républicain de ki nga Amady Amady Anne Amady Anne nag moom dégg nga lu wax si nga xam ne moom rek si euh, le peuple daal si indi kàddu yu euh, bëri bëri waaye bu ñëwee si les socs les socs nag Bougane Gueye Dany la fa daal di addu ñëw na si Bougane Gueye Dany daal di si wax lu yaato yatu gis nga ba tey eh, cortège bi nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko bi violence eh, fi nga xam ne moom mooy total rawat na fële sa eh, Koungheul gis nga ak seen ni nga xam mooy jàmmaar loo fa xewoon loolu yëpp nekk nag loo xamante ni lu rëy rëy la ndax nag jàmmaar looy fu mu toll daal nay takkanaa si diggante kujje yi maanaam interface yi nga xamante moom moo di élection yi rawat na parti opposition opposition yi ak parti bi nga xamoon parti pouvoir yi gis ngeen kii nag moom moo di Anta Babacar Ngom euh, moom lañu nemmeeku ndax le combat de capitaine bi nga xamante moom moo di rek institution moom Anta Babacar Ngom gis ngeen ko foofu élection législative Amadou Ba mobilise a Brooklyn na ko daal tudde moom Amadou Ba gis ngeen nag démb nag xale yi ñu ko doon tool daal di tooñ ndax oto yam yi doon defee ni moo di campagne oto ya dolli ma <laughs> moo tax xale yi da nga ko doon sànni xeer dolli ma dolli ma mu nekk nag loo xamante ni ñoom daal nañ koy def ab tendance jël dolli ma da teg ko teg oto yi mu ngoog ba tey dañu koy addu si li nga xamante moom moo di rek eh, eh, réveil réveil nag moom daal di ñëw si état lève de état lève cent quatre vingt eh, cent quatre vingt un milliards de francs CFA ngir nag lu gën a si li nga xam ne moom bi nga xamante moom war a gën a mën a saytu defar ñoŋal réew mi ñoom tamit daal na si àddu li xam ne mooy ñëw na fi si ay pouvoir euh, politique le combat di euh, capitaine doon na si a baax waaye tamit euh, gis na Rufisque boo xamante Rufisque boo xamante ni gis nañ si Bougane Gueye Dany condamné nañ ko nag lu toll rek mais nag libération bi nga xamante moom dafa daal daal di génn gis nañ ko nag bu mu génnee rek daal di nag remercier bu baax a baax askan gi rawat na le monde bi nga xamante ni sàkku na ne di ko taxaw bu baax a baax ba tey si l'info l'info ñëw si Sonko ak kenn moo di eh, Amadou Ba eh, gis nga lépp lu aju si rek le nga les eh, critique critiqueurs yi nga xamante ni ñoom dañuy nekk nekk si mbir mi di wax naka sadut noonu daal nañu àddu bu baax kooku nag l'info moo ñu ko daal di xamle bu baax a baax mbokk yi muy nag tendance boo xamante ni yor-yor gi yor-yor nag moom daal di nay àddu moom tamit Sonko. expose en plein en plan du moins de développement de agricole et de l'élevage maanaam Ousmane Sonko premier ministre daal nay teg plan boo xamante ni ngir nag lii di eh, développement wu agricole ak agriculture ak li di élevage bi ngir ñu gën koo mën a ñoŋal ba tey ki nga xam ne moo di rek yor-yor dañu koy addu eh, si eh, li nga xam ne moo di rek rawatina moom mi nga xam ne Bougane Gueye vingt. quatre coalitions en enquête sur les euh, enlèvements euh, récents moom la ko daal di tuddee gis nga fii euh, El Hadji Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu nga fële sa Arabie def arme moom tamit ndekki rek démb gis neen ay image yoo xamante ni moom El Hadji Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngi def nag effectuer la la la la la ormal urma boo xamante ni da koy daal di amal fële sa Arabie Saoudite mu ngi koy euh, fanaan yi di ko def muy arma boo xamante ni daal euh, daal na koy def waaye tamit waxtaan goo xamante amal na ko nag ak ñi nga xamante ni euh, ñoom ñooy kujje nga xamante ni ñoo nekk fële sa diwaanu Arabie Saoudite l'état en plus encore cent quatre-vingts milliards en Europe pont li nga xam ne moo di rawat na ay élevé loolu nag gis nga kii di Bougane Gueye euh, libéré euh, et plus que jamais déterminé waaw moom da daal di dutte muy loo xam ne réew mi réew mi nag ñoo ne si Sonko attaque Sonko attaque à euh, Koungheul maanaam dañ ko attaqué fële sa Koungheul moom ak cortège am bi ba am ñu si sa amee ay gaañu gaañu waaye nag lépp rek ñu xam ne euh, li nga xamante moom moo di rek li jagar réew mi nañ ci dox ndax président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay mun nañ sa wax ne El Hadji euh, Dia Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom nag daal di nay li mu xam ne woon si njëlbeenu euh, campagne rek mooy nañ ko si dal dañ ko si jàmm ak salaam ba nga xamante ni képp koo xamante ni rek daal di ngay ñu voté ko si lépp loo xamante rek dal lay doon ak lépp loo xamante ni rek si jàmm lay doon moom la woote woon niki muñ balaa muy dem mbokk yi li ma nekkoon li nga xam ne gënoon fa si xibaar yi yéenekaay yi da télévision Kabir Mat